li si yéenekaay yi ak Ami Dem Sa Ngor. internet du 5 TV àllema seen i yi ñu door ko ak Sud Quotidien yéenekaay bi xëy si dialogue national bi ak la ca tukkee journal yi xam ni ñoom ñu ko seq doon nañ ci waxtaan la la ca tukkee am na am na itam loo xam ni ànduñu sa ndax rek lu ñeel dàq bi nga xam ni moom la ñuy dàq jongante gox yegg goxaat yi déggoo amu ca ndax rek daa am lu leerul ci bulletin unique ak caution bi l'observateur def ay révélation si tànneefu boroom xam-xam yi nga xam ni ñoom ñoo war a càmbar fichier électoral xamle na ni cabinet ERA juróom-ñeent borom xam-xam yoo xam ni euh, dëkkuñu ci réew mi ñoom ñoo seq rek fichier électoral boobu waaye itam li ñu ci nemmeeku rek mooy amul kenn koo xam ni euh, bokk na rek ci kuje gi nee nañu nag liste borom xam-xam yooyu talaata bii di ñëw rek la ñu koy fësal ñu jàll ci la tribune yéeni kaay bi dëgtal ñu kàddu yu Alioune Tine mi nga xam ni na daa dal ci kaw rek goro ak jëwriñu njiitu réew mi di Mansour fay mu xamle ni Macky Sall dina jàmmaarloo ak dëngtewu rek Mansour Faye moomu ba tax Alioune Tine ne daa war a dakkal rek ñaawteef yi nga xam ni moom la nekkee moom Mansour Faye mu Sall daa deful rek benn jàngat ci li nga xam ni moo yàqaloon njiitu réew ba woon di maître Abdoulaye Wade critique ne noppi gi Aly Ngouille noppi tey na xel ndax rek ba ñu ko jëlee ci poste jëwriñ bi gàlloo ko biir réew mi ba tey dañuy tekk tekkaaral ñu jàll ci laa bi yéene kaay bi di ñu xibaar ni Moustapha Diakhaté lu ñeel coowal ville de Dakar loi d'habilitation ak gën dëgëral démocratie réew mi nekk na ci lu mel ni xemi njiitu réew fu ñu dugal rek 64 ba ci rek 90 milliards ci kopparu CFA yi ñu joxoon nguur gi ngir rek ñu yoree ko Covid 19 bi benn borom xam-xam xam na si journal bi ne dañoo war a jàppale gox-goxaat yi ndax rek loolu moo leen jàppale woon ci xeexu sida beek paludisme bi ba tax direct news ne Mamadou Lamine Diallo dal na ci kaw rek Abdoulaye Diouf ndax xam na ni Diouf ba tey jii rek mënul leeral koppar gi nga xam ni moom bi soppi rek la loi 1969 bi jëm rek ci état d'urgence ak état de siège yéenekaay bi ne amul dara rek loo xam ni soppi nañu ko ca ndax amul dara loo xam ni kal nañu ko rek njiitu réew mi Macky Sall ci doole wala sañ-sañ le quotidien seq waxtaan ak njiital service des maladies infectieuses bu hôpital Fann professeur Seydi waxtaan ci lu yaatoo yaatu ak suñu naataango yi li mu xam ne rek mooy seen taxawaay si ubbi waat barabu fajukaay yu bees moo xaw a yéex mu teg ca ni dara wanewul rek ni jàngoro ji nga xam ni moom mooy law jamono ji moo gën a ragallu Walf Quotidien ne nitu diine yi rek teggi nañu ndigalu jëwrin bi ñu dénk wàll ko biir réew mi ndax màggal Mbàkke Kajoor appel des Layènes màggalu Poroxaan Kazu Rajab lépp dina am ba tax rek journal bi ne ñu jàll ci sunu làmb yéeni kaay bi di ñu xibaar ne waa axlu làmb si njiitu bi pasaw si eh, nañu leen rek bàyyi ñu dund seen passion seen tegcani nañu jël ay pexe ngir rek ñu mën a dooraata làmb ji eh, site ne état bi rek moo war a jàppale askanu Sénégal ndax sonn nañu booy ñaar dolli ci ni rek toog na nañu fukki weer yoo xam ne liggéeyuñu ba tax état bi daa war rek jàppale leen ñu jeexal ak les échos yéenekaay bi ñëwaat ci faat bi ñu faat berge bi nga xam ni moo am juróom-ñaar fukki at ak ñaar te ñu ne nag moo nekkoon soxna wu maam góor nekkoon ñetteelam te ñu ne maam góor moom rek moo ko faat yéenekaay bi dégtal ñu kàddu ya jibee rek ca enquête ba nee nañu nag maam góor daa dóor josé ci bopp ci noonu nag la daanoo ci karo yi ba bopp ba daal di toj si noonu la faatoo ndax hémorragie interne tey rek nee nañu jëkkër ji rek daa nekk di fen yu Thiès yi lu tolloo ko de recherche bu gendarmerie di ko daal di teg loxo ba tey journal bi xamle na ni jabaru sénégalaise bi nga xam ne amoon na ko teg nañu ko loxo ndax nee nañu nag complice la démb la ko daal di jàpp te nee nañu nag ñoom ñaar ñëpp nag daañu leen a defeere tey jii ca parquet ba fi la ñu ndar keppeli si yérekaay deloo leen seen i ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf